liggéeykati hôpital principal xëy meer ba futu daal takk ay brassard rouge mu bokk ci li ñuy ñaawlu ay accord yu ñu signé woon ak seeni njiit ya te ba léegi France daalu xëddeen bu ñu sukkandikoo ci Ablaye Thiaw muy secrétaire général bu syndicat bu ëmb liggéeykat civil ya nekk ci hôpital ba daaw dañoo négocier ak direction bi ci benn protocole d'accord bi ñu demee ba fin d'année protocole d'accord ba nga xamante ne dañu signé woon xaatim moom médecin chef signé ñun ñu signé ñu jël ko taxañ euh, prime d'intéressement bi sànni fale ñu jàpp ne loolu du yoon accord buñ ko signe dañ ko war a respecté sept mois ñu ngi xaar xam nga ne ku xaar sept mois sonn na ndaxte prime d'intéressement bi ci hôpitaux yi Sénégal yi ngay wër yëpp hauteur de vingt vingt cinq pour cent lañ koy fay hôpital principal rek lañ koy fayee sept pour cent am na ay personnel yoo xamante ne seen contrat dafa méngoowul woon ak code du travail ni mu tënkee contrat ñu xeexoon ci ba direction bi régulariser seen contrat ñu yoreel leen nag ay arriérés de salaire mais arriérés de salaire yooyu depuis at ñu ngi ciy daw pour ñu fay leen ko. ñoom nag ñu ngi woo njiit yi ngir ñu saafara seen i jàngoro. lu ko may dinañ amal grève générale ci alxamis bi ñu dëgmal ak ajuma bile. lii part bu njëkk la parce que niñ ñun. bu doon suñu sago problème bi ñu réglé ko tey ñu delluwaat suñuy service dem liggéey faji maladi tey bu ñu réglé woon problème bi ngoon ñu dugaat ci hôpital bi dem faji sumaan bu ñu ko réglé wul nag incha allah dinañ décréter benn mot d'ordre de 48 heures jeudi vendredi dañ koy def grève générale. waa f dinañ jàppal tànk di xamle ni buñ moytuwul dinañ soobu ci bile xeex te sax dinañu paralyser lii di système sanitaire bi fii ci Sénégal. ñu ngi wax président ak ministre de la santé lii buñ ko réglé wul nu mu gën a gaawee. na jàpp ni fédération bi dina dugg ci xeex bi te kon boobaa structure Sénégal yëpp dinañ indi seen soutien ci hôpital principal te kenn bu boobaa du nekk responsable lu dul directeur bi. liggéeykat yi di xam le ni seen mboolu muñukaay dafa fees ndax sonn nañ ci ay accords yi ñuy signé te duñ ko respecté ba tax ñuy woote wàllu.